ndigal la nag ay sàkku la ak i ñaan loola mooy dafa bëgg ñu xam ne jàkka ku fay ñëw ngir jaamu yàlla tax kon am nay teg ba mën a sàmmonteel kuy julli si war ngaa ñëw cig dal akuk tek ba def sag jaamu yàlla ba def say ñaan doxaan ndànk delluwaat sa kër kon nag nee na lépp luy coow ak yooxaloo ak noo ko mën di tudde donte ne ay ñaan ngay joor ca kaw loolu bëggoon na ñi koy def ñu dakkal ko ndax rawatina su jullee ba noppi moom sëriñ bi bay dellu këram ñoo ñu di def am ndiiraan topp ci ginnaaw daamar ji di daw ak di yooxu donte ne lañuy def yéene ju rafet lañ ci àndal ak i ñaan waaye loolu nee na mi ngi sàkku ci mbooleem ñi ko doon def ñu bàyyi ko ndax gënalu ko te ab taalibe nag lépp loo xam ne gënalu sëriñ bi war na koy moytandiku ndaxte jooro ak yëkkati sa kàddu ci kanam kilifa alquran daf ko tere bu yàgg ci wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din kon nañ xam ne loolu ndigal li nañ ko bàyyi xel